Guédiawaye tamit mention waaw waaw dinaa fa ñëw dinaa fa ñëw dama lay njëkk laaj mbër yi Guédiawaye wala mbër yi ci àdduna bépp kan moo sa idole yow. non man ma référence. Ah, lu tax. ah, ah non defal ndaa nga ma dégg artistes yi naan kii mooy sama idole jànkat yi naan kii mooy sama idole mbëri yow nga ñëw ma laaj la ku ne di am idole yow amoo idole loolu lu ko waral. mais àdduna kenn sa objectif. waaw kenn ko ne ak sa objectif man. Hmm. mbëri xanaa kon am nga ñoo ci am relation ñan la. man waa Géejawaay rek. waaw mais nag waa Géejawaay Balla guy gi ñëpp nga fa kan. waaw guy gi. Balla Gaye Balla Gaye nga fa waaw. ak sama kan nga maanaam koo xam ne ni da ngeen di demalante di dikkalante kan la. sa relation maanaam ngeen doon eh, ngeen. seq di déggante waaw loolu laa lay laaj. guy gi la hmm. ku mel ne Balla Gaye nag. waaw dama koy lu ku la jiitu ah, la dëkk te def lu baax de. maa la wax loolu. maa la ko wax de. kon daal guy gi mooy sa xarit moom ngay dégganteel lu bari. ah larda ah, ko waaye du may xaalis Balla nag. waaw Balla ah, doo dugg foofu ah déedéet.

bépp sport annulé nañ ko. Mm. mais dañ ci ànd ak normal yu attente yu bien yu difficile yoo xam ne dañ ko koo dañ ko koo accepté ngir niñ ko doon sax dañ ko doon ba mbas mi dañ ko doon sant di ko gërëm mais dëgg na am na mais ñu koy ñaan ginnaaw yàlla ak yonent bi. ñun mm-hmm. jeunes yi xam ne je suis jeune y' a pas de film y' a pas de femme je suis travail bien c' est entraînement correct combat c' est préparation kon nañu bàyyi ngir yàlla mu ñaanal ñu Macky non <laughs> yow yow seen napp seen napp. non ban français ngay wax nii moom a jaaxal man. c'est lan dama ne. waaw ceci jeune y a pas de film y a pas de femme. ceci travail bien un jeune ceci préparation les combats là ceci annulé les Matar Ba ceci accord bien. les annulé les euh, les demandes les Macky Sall. waaw kon saa si boobu kon mag ñu ñaan Matar Ba. ngir yàlla ak waxal ñu Macky Sall mu bàyyi ñun ñu delluwaat suñu sport national. waaw waaw actualité mooy làmb. Hmm. kon daal gis ngeen fi jot na daal mu ñaanal ñu Macky Sall daal kan moom kan nga lekkoon avance am. man maa njaay laa xool bëri bëri lan Sall quoi. ah moom nga lekkoon avance am. Pape Fall yaa xawul si moom mi la yaa xoo xaw ma mbas la nga corona. mais de mais mais dégg naa kooku dafa garaaw de. ah. <laughs> loolu yàlla baax naa ko. mais de xam nga sama si war a jàpp jàpp si rek xam nga moo loolu quoi ñu si war a jàpp ñëpp ñu jàpp si rek xamee yoonu ndaw moom du gaaw quoi. non damaa dégg ma nit ñi di ko joobe affaire naan mooy gaañan bi nu mu tuddati sax nga dégg naa ko garaaw la te dafa mën a bëri noo ko gisee loolu yow waaw mooy li ma la wax rek man fi ma toll waruma jug si làmb ko am man sept combats laa am cinq victoires deux défaites